fii ICS dañu recevoir comité de suivi de la campagne agricole euh, woon leen ñun ci liggéey bi ñu ci taxawee par rapport à la campagne agricole bi notamment engrais yi nga xam ne mooy 6 20 10 pour euh, pour gerte bi 15 10 10 pour euh, mil ak engrais dugub triple 15 jot nañu depuis juin commencé nañu jox opérateur yi nga xam ne moom la état bi désigné pour campagne bi ñu ngi leen di livrer jotagum nañ livré 13 000 13000 tonnes ne serait-ce que Il y a une formule tamit est engrais anglais engrais mil ak engrais euh, maïs bi jot nañ ci livré dara te yaakaar naa ne ci fan yi di ñëw ak 10 euh, ba 15 jours maximum war nañ a 80 sur ces deux autres formules donc euh, ñu ngi ciy euh, usine bi Sénégal rek lay liggéeyal fi mu nekk nii am nous yaakaar fii ak fin du mois inshallah

donc ci loolu la ñu liggéey d' accord ak ministère bi donc commencé nañ ko euh, am na lu takku lu ñu jot a joxe dinañu continuer incha allah fii ak fin du mois euh, euh, joxe lu am solo ba nga xam ne nit yi dañu mën liggéey ci jàmm ak salaam. ni ngeen ko xamee nawet dañ koy waajal waaye nguuru Sénégal gi comité de suivi bi la jiitaloon acteurs yépp nag bokk ci waajal nañ bu baax li nga xam ne mooy nawet bi la war a dem ci wàllu jiwu. teel nañ koo saytu ni fii la war a dem nii lañ ko war a doxalee mais la war a jëm ci wàllu engrais itam teel nañ ko saytu ni nii lañ ko defee ku ne xam ne nag ne du nguur mooy defar engrais nguur jënd du jaay engrais waaye ba la koy jënd da daan seet ñi nga xam ne ay privé lañ ñu tuddee leen ay opérateur économique ñooña lañ daan jël loolu ne leen dem leen ngeen indi ko ngeen war koo mën a joxe ci fangeen ko daan joxe ak na ngeen ko doon joxe ñooña nag jublu woon nañ ca loola bi nga xamee ne bii kon ñëw nañ ci ICS bi nga xam ne li ci ëpp moo ko doon joxe ah ñun benn xalaat lañ amoon mooy nañ fexe nag ba produit boobu ñu tuddee engrais moom suñ joxee jiw ba pare rek na dal di teew ba ca desit mooy nag am na bitim réew ñuy ñëw di jël si engrais fii ci ICS waaye nañ xam ne faratay réew mi mooy jox engrais ñi nga xam ne ñii ñoo ko soxla di ay baykati réew bi bu farata bi jàllee nag lu ñu def nag loola day wéy waaye alhamdulilah bi ñëwee léegi ba déglu waa ICS gis nañu ne ñu ngi ci ndax li nga xam ne moom la Sénégal di njëkk a def mooy joxe jiwu gerte su paree topp ci la nga xam ne mooy céréale mais suñ joxee jiw ba ñu ji rek la ca topp mooy engrais bi ñëw kon engrais ñu ngi dool a ci jamonoom su fekkee engrais bi nga xam ne moo war a njëkkit muy bu gerte bi ñaar fukki junniy tonnes ak juróomi junniy tonnes lañ wax ne moom lañ defoon commande fukki junniy tonnes ak ñetti junniy tonnes déjà léegi ñoom livré nañ ko da ngay jàpp ne joxe nañ lu ëpp genn wàllu li ñu doon commandé te ñu ngi toll ci fin juillet kon am nañ xel mu dal ci ni ñu gis nag ñuy liggéeyee par exemple quatre-vingt-dix mille tonnes ci ñaari ateliers yi ndax bu njëkk bi fi ne woon am ne doole jooju ñuy liggéeyee buñ ko continuer te bañ a taxaw bala noo egg ci fi ñuy demee ba naan ah engrais bi dana yàq mbay mi engrais bi danañ ci jot kon nag loolu seetlu nañ ko kon ñu ngi dalal xelu baykat yi ñu ngi dalal itam xelu réew mi ne li nu fekk ICS taxawee li nga xam ne ICS jot na ko wax nañ ko continuer nag ñu siwur ko ñoom itam rythme boobu ñu continuer ko su boobaa nag engrais bi dana war mën a àgg fa mu war a àgg